C'est juste une initiative bi nga xamni ay jeunes entrepreneurs ñoko am muy une équipe bi nga xamni dañ ko xalaat juste pour joxat gëdd ñi nga xamni moy entrepreneur yi nekk ci ruq yi te bok ci ñi nga xamni ñom dañuy participer ci économie dëkk bi muy couturier bi muy coiffeuse bi muy start-up yu ndaw ak ñëpp ñu dajalé len fas def ben cérémonie bi nga xamni fête de l'excellence lañ ko mëna tuddé Faire de l'excellence, ça veut dire pour montrer aux autres qu'à Saint-Louis, il y a de la matière, mais aussi à ce que nous, ñi nous rompre base pour dem parce qu'au minimum nous avons jël aussi ñi secteur nous choisirons un thème pour première édition, la capacité à créer et à conduire une petite et moyenne entreprise. Nous avons rencontré Taïti Souba, nous def galabi un gala de la Louise le 5, Inch'Allah wane wan ñepp ni li amna na à Saint-Louis mais aussi ñi ci gëna fess ci seen liggéey ñi ci gëna def ay djégo ñi ci gëna gor gorlu ñu jël ay ay prime yi nga xamni dañ leen koy jox donte représenté wul dara mais ngir wan nit ñi ni que ki mi ngi gor gorlu bu ko défé ki togon deful dara mom dina juk itam def dara ki nga xamni itam tambali won na te gëmu xamni c'est bien possible donc initiative bi c'est rien d'autre que ça ñu nekk ci ci man la compagnie moko initier and ci ak les jeunes yi nga xamni convergence de sang Saint-Louis initié ko ci lolu mom modi initiative galdor d'Or koy def le 5 janvier di inviter nak waa sans lui yep di inviter les autorités di inviter les entrepreneurs ñep pourquoi on s'est limité ci bi bo xolé presque ci secteur artisanat bi la ñu parce que première édition bi motax thème bi mo ñu mayul ñu élargir sunu champ pour djel ñep donc bi ñu ak selon les critères yi ñu bëgg choisir nous on se limite sur ça et l'année prochaine peut-être bu ñu koy defaat incha allah ñu mën intervenir ci yeneen secteurs